ay bañaalem rey nañ ko mais ndax dinañu am ndam déedéet duñu mës a am ndam yeesu dee na léegi ku am xaalis maanaam nit ku ràññeeku moo ko jël daldi ko yóbbu dugal ko ci bàmmeel bu bees bu mu gasaloon boppam daldi jël xeer bu mag daldi ko tëjee bàmmeel ba wante ci ñetteelu fan yàlla mi am kattan te doon mbor bu mag daldi na dekkil neewu yeesu ci diggi neew ya noonu nag la yéesu dekkee ci biir neew yi am na léegi noonu mu daldi dund te nekkatul ki dee ni ko yoonante yi waxe woon ci seeni téere